asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV ñuy naa leen ziar naa leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo pour ñi xamante ne ñoo ba si chaîne bi la maa leen di wax welcome chaîne bi la seen chaîne la abonné leen nank cliqué leen si cloche boobu ngeen gis vidéo bu ñu dugal ngeen daal di ko mën a seetaan bu leen fàttee tamit vidéo bi c'est très important mbokk internet yi tey dañu ñëw wax si Youssouf Sabaly ndax Youssouf Sabaly jamono bii nag dafa nekk ci forme bu doy waar franchement. Youssouf Sabaly, il est phénoménal actuellement du côté de l'Espagne, que ce soit Coupe d'Espagne, que ce soit Liga espagnole, depuis mon jeu blessure. Franchement, moi, je suis en Espagne, man dama am temps dama mëna football amna ay culture yu xamantene bo nek gisé ci man di Et contane ay jamono bi di côté de l'Espagne, que ça soit taskatu xibaar yi ñoy wax ci mom euh surtout que dafa dem ci ben équipe bu emblématique équipe bu xamantene Betis bi xam nañ ko am na histoire mais gëñu ni dem sax finale mom le jour contre Real une demi finale mu nekk homme du match homme du match loolu c'est quelque chose jarul xeeb parce que on parle d'un championnat bu xamante ne beneen culture la langage bi euh, c'est pas le même football que championnat France le gars dafa adapté wu te ñëpp xam nañ ne dafa amoon gaañu gaañu bi ne diir bu yàgg mu xañ ko Coupe d'Afrique xam nga mais mentalement la waa ji sécurisément parlant nice blessé boobu fàtte nag moom ci leneen moom la fekk sax si lu woon Napoli ça veut dire que le gars mentalement il est prêt man je me rappelle

du côté de Nantes du côté de Bordeaux parfois de temps en temps daal nañu woon loolu et mooy Deschamps li muy wax Deschamps dafa am critère critère bi loolu la boo gisee benn jour dañ koy natt si match yu mag comme tey jii moom match contre Atletico de Madrid ji Diego Simeone benn équipe boo xam ne jënd na jour 100 millions xam nga mais dañ koy adversité boobu noonu boo si nattee jour bii di Youssouf non seulement mu joxe passe ba pare mu génne benn bi bu xamante ne moom encaissé ñu def match nul 1-1 mu def si wàllam bu mu mën set franchement Issa il est en forme euh, Coupe d'Espagne naka noonu nice rien à dire lu des kon donc bu ñu waxee loolu yëpp nag lenn lañ fiy teg muy ka Alou Cissé est ce que choix bu baax est ce que du teg titulaire face à l'Égypte mu teg Youssouf Sabali parce que ces deux joueurs kenn ki Bouna Sarr la kenn ki Youssouf Sabaly c' que Coupe d'Afrique bi lan moo lan moo tax mu différent ak deux matchs yi mooy que Coupe d'Afrique bi c'est man nga ñëw géo en club nga gis li ko waral lan la mooy que premier match bi da ngay joué doo gis noonu après nga monter en puissance la fekk gëj nga joué on peut dire que am na match de poule et ces chaque match mu fekk da ngay dem ba final alors que match bi c'est que deux matchs amoo droit am erreur amul damay essayer damay naan non non amoo erreur looy essayer comme bi passé ni ñu amee woon ay zones yu Covid yu dul jeex mais loolu compétition mën na la ko permettre mais lii deux matchs la détail bi gën a tuuti waroo ko def maanaam erreur bu ndaw sax maanaam. tey jii lu leer nañ nañ nañ nañ dañu war a teg poste latéral droit et lii leer nañ ba ba ñëpp gis que mu nekk jant Youssouf Sabaly défensivement man gëm naa ne il va au charbon day xeex ak waa égyptiens yi naar yi foog nga dal leen mbëkk leen elaka eh, lola non seulement lola am ko mais isa dafa côté côté offensive la nek di wone ni c'est pas pour rien play green jël ben bele rin tek ci ban bi jël ben way bu xamantene liga espagne mo fete tank mu kay titulaire en tout cas tay un grand match la def du côté de atletico de madrid mo ñewal atletico de madrid il est en forme et du bonne sa relation club du jouer donc surtout match aller man match aller bi la gëna ragal dama parce que dama soxla benn gaynde benn waaye bu xam day dem au duel ragal day mbëkkante day xeex et Youssouf Sabaly mooy joueur boobu mooy joueur boobu et dafa nekk di ko démontrer du côté mbokk yi ni mu nekk bi ci commentaire yi man ngeen ma wax entre Bouna Sarr Youssouf Sabaly premier match fële Égypte kan lañ war a teg boo leen ma mën a argumenté aussi dina ma neex trop mbokk yi li moo nekkoon vidéo bi maa leen di jaajëfal di wax ba beneen sur Senfootball TV asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV ñuy naa leen ziar naa leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo pour ñi xamante ne ñoo bees si chaîne bi la maa leen di wax welcome chaîne bi la seen chaîne la abonné leen nank cliqué leen si cloche boobu ngeen gis vidéo bu ñu dugal ngeen daal di ko mën a seetaan bu leen fàttee tamit vidéo bi c'est très important. mbokk internet yi tey dañuy ñëw wax si Youssouf Sabaly ndax Youssouf Sabaly jamono bii dafa nekk si forme bu doy waar franchement. Youssouf Sabaly, il est phénoménal actuellement du côté de l'Espagne, que ce soit Coupe d'Espagne, que ce soit Liga espagnole, depuis mu jógee si blessure franchement moom woon waa espagnol, ne man dama am temps dama a football am na ay culture yu xamante boo leen ko gisee man di ngeen kontaan ay jamono di côté de l'Espagne, que ça soit test xibaar yi ñooy wax ci Euh, surtout que dafa dem si benn équipe bu emblématique équipe bu xamante ne Betis bi xam nañ ko am histoire mais gëjoon nañ dem sax